<laughs> asalaamaaleykum wa asalaamaaleykum waa Sénégal bu la ci mbir borom kontaan naa ci affaire yi kontaan naa ci dañoo tëj Walf alamaan ko xaaj dafa am benn baay bu ci def euh, di ci kaas waa ji dem na wax bay saaga déglu leen. man manifestation yu am rek ñu jàpp Walfadjri coupé si ñaaram lan moo waral loolu Walfadjri rek dafay ne ci télé ah, li muy def moo ne dëkk waji neena wal xaj bu len ko fay dem na ba da saga sax dem na saaga na sax ne buñ fay dara léegi deglu ma dama koy woné ne ko euh, man la man man la dom si lebi ñass bi Cheikh ñass ba par do ko man la ko manda fay gaay deglu man ak mom moom diaspora nabi mo len may appel ci salaamaaleykum maa ngi siyaare sëñ bi. waaw delloo siyaar baax a baax. Euh, yaa ngi si Euh, man la euh, Cheikh Niass. Cheikh. Cheikh Niass Cheikh Niass bu euh, doomu Sidi. waaw doomu Sidi la Niass maa ngi lay baax. Ah, waaw maa ngi lay ziar Niass bu baax kay dama seetaan sa benn vidéo. waaw. nii ngay wax ci télé bi mu mu intéressant loolu gars yi envoyé ma na ma kontaan ci trop jërëjëf waay. Hmm, mais yaa ko eh. wax. ah. yaa ah, la. mane ne yow la waaw man la dama ne li ma loolu mooy. waaw. yow ba tali ah, d' accord léegi. Hmm. Euh, man la commandant Faye. comment. dama euh, sa vidéo bi ñu ngi ma ko envoyé police bu mag bi. waaw. fa lañ sa vidéo waa général ñoo ma ko waaw muy vidéo bi nga doon wax léegi nii ci télé bi. yàlla xam na ne yàlla xam na ne yàlla xam na ne waxuma ci lu ñaaw. waxuma ci tamit yenn xam ne jar na ko maanaa di ma wax. léegi xamul ma bëgg. waaw nga wax ñu fan nga nekk fii fan nga nekk nii nii. parce que yow li nga def sëñ bi damaa bëgg nga dégg sëñ bi nga def nii. dix ans de kaso la dama ne dama ne ma rek fi ma nekk daa lool te mënoo xam naa amoo jotu ñëw fi tamit nag te jarul wéyal tamit xam nga dëkk bi tamit li ñu wax ak bii war fi ci boppam li ñu war a moom nga war a tax koo xale taal ko mu sénti. allo dama ne. sénti allo dama ne. dama ne. léegi yow dañuy bëgg léegi yow li nga def nii. dix ans dix ans de kaso la ndax yow tuumaal Macky Sall nga ne moo tëj wàll fi te xamoo ci dara léegi yow waxuñu foo nekk. barke Seydina Mohamed tudd ba turu wàcc. wallaahi wallaahi.